l'extérieur mais avant son voyage aussi mhm. moom jaar na Pire wax naa leen ko fii daaw Pire sañu xuur waaw mais la ko fa indi woon mhm. nekkul ni maanaam dafa jàng si woon moom moom ba mu amee yéene fetal jihaad mhm. mu xam ni mënul yëkkati jihaad ji te jàngul géographie hmm. jàngul matière bi ñuy wax géographie te booba dafa am ay promotionnaire waajuram yu def yu def ci daaray piir seen thèse bàyyi ko ci daaray piir ndax Baye Seydou. Pire la jàngee voilà mmh. léegi daaray da yu mag yooyu la Cheikh Omar doon ñëw pour consulter si. Mmh. coow li coow li ñaari yoon la fa voyagé. Mmh. benn bi un def bi ci des six Cheikh Omarul Fouti. mu consulter thèse yu mag yooyu hmm? ba pare soog a génn nag dellu fuuta ba mu demee la ko fa yóbbu woon mooy tàggu ay waajuram hmm. pour mën a yëkkati nag voyage am hmm. ba mu fa yeggee aussi bari nañu fa xew mais bi mu jógee ñu ñaanal ko ba pare mu ne ah comme moom day jóg il faut nag li ko yàlla dénk ci alal mu séddale ko parce que mi ngi jóg taxamul kañ lay ñëw. Mhm. daanaka dafa miraas boppam mu yëkkati alalam yépp Cheikh Omar ku teel a am alal la. Mhm. baarakallaahu ci ay jur ci or ci ci alal mu séddale ko yépp soog a jàpp voyage. am na nag benn magam boo xam ne moo ko yar. Mhm. moo ko jàngal tajwid. ñu koy wax Alfahima Ahmad. Alfahima Amadou moomu moom la Cheikh Omar amoon yéene pour ànd ak moom ci voyage am. mais malheureusement mu ñëw waxtaan ak moom mu gàntal voyage bi fekk dafa am lu tax am na sabab bu tax mu gàntal ko mu ni léegi kaay nga ànd ak Alioune sa mag mu ànd ci voyage bi ak Alioune magam loolu moo tax loolu moo tax Cheikh Omar jóg ak Alioune mais yéeneem moo nekkoon ànd ak Alfahima Amadou bi mu jógee ak Aline ñu ànd pour entamer voyage am nag vers l'Orient pour traverser toute l'Afrique avant muy dem donc bi mu génnee am na son son premier voyage vers la mais la avant muy dem moom ci xalwa ci xalwa lanu ko wane ni gine gi ngay jublu di nga fa fekk 363 waliyu première gine réewam bi Guinée la ñu ni ko di fa fekk 363 waliyu ca Guinée waaw booba Fuuta booba Fuuta Tooro ak Fuuta Jalon benn la Fuuta Tooro à l'époque mhm. époque Cheikh doo gis fukki nit yu ànd juróom-ñeenti yi waliyu la benn bi des sax ñu ngi ko koy jiiñ xaw ma nag dégg nga ma. dégg naa la baax <laughs> fukk yoo gis ñu ànd. fukk yoo gis ñu ànd. juróom-ñeent yi waliyu la. te benn bi ñu ngi ko koy benn bi ñu ngi ko koy jiñ. booba foofa la la la la mm. ñu ni ko di nga fa fekk cent 363 waliyu 300 yooyu yaa leen sut yow Cheikh Oumar. 60 mm-hmm. yi yéen a tolloo ba mm-hmm. mais ñett yi ñoom jàpp nañ ñi ñoo la sut. <laughs> xam nga dégg nga ma. bu baax muy Thierno Saadou mu Deleng. Mhm. kooku mi ngi dëkk Deleng dans la région de Deleng mooy maamu Selu Deleng Diallo ma doon xëccoo réew ma moom lañ ko tuddee. Mhm. Thierno Mariata du Massi ak Thierno Omar Bombeya mu ni ñett ñooñu jàpp nañ ni ñoo la sut tabaarakallaahu Cheikh Omarul Fuutiyu ñëw jaar la Guinée génn dugg Mali. pour traverser aussi l'Afrique bi mu ñëwee ba Massina mu jël fa soxna boobu mi ngi entamé voyage am mhm. tabaarakallaahu booba diggante Massina ak Nigéria Pape maa ngi touché sa question daaw mhm. mooy son passage ci Nigéria Nigéria mhm. maa ngi ci soog a yegg si ren la ko yàlla dogal tabaarakallaahu bi mu ñëwee ba Massina mu jël fa soxna mais boobu bi muy bi muy dem la mais bi muy dëpp bu egsi bu dëppee ba egsiwaat Masina dana fa fekk lu wuuteeg la mu fa bàyyi. booba diggante boobu am na une guerre intertribale mooy guerre boo xamante ni xeexu xeet la ñu ni ko boo fi duggee ak sa mbooloo amaana buur yi dañoo fiir mën nañ la song. mais comme boobu diggante Masina ak palais Mouhamad Bello am nañu alaaka ñu boole kook ay guide yu ko yu ko yóbbaale mhm. bi mu demee ba tase ak Mouhamed Bello dafa jub pale bi Cheikh bi mu tegee tànkam dafa jéggi pale bi rek Mouhamed Bello jóg fi mu toog bi mu jógee mu waaxu daje ak Cheikh Omar ak moom mooy akolaat mhm. bi mu ko akolaatee doomam di taawam dafa jóg ni baay man judd naa ba ni ma nekkee mu kàllaf masuma gis nga jugal nit masuma gis nga jógal nit sa pale bii képp ku mus a franchir bunt bi dafa raam fekk si la fi nga nekk xatta mhm. bi Cheikh Omar egsee mu ne xatta bi Cheikh Omar egsee mu ne ko ah doom dangaa xamul rek waaye kii jëmm ji bi mu jéggee sama buntu kër ci lay yëg ma yëg xam nga ndax li ma wax. bi mu bi mu jéggee sama buntu kër teg tànkam. waaw moom Cheikh Omarul Fuutiyu Mouhamad Bello mu ni ci la yéeg moom moom ci la yéeg man ma yéeg. allahu akbar. kon Cheikh Omar a ko yéegee. moo ko yéegee. Mm-hmm. mu ne ko maag moom nag ñu ànd di xotti awaalim yi di dem. muy dem may dem muy dem may dem ba mënatuma. ma teen seen ko muy xotti awaalim yi di dem mu ne waaw gan gu mel noonu ku ko am doo ko teral mu ne ko ah kañ ba mu wéeteeg Cheikh Umar mu ne ko dama bëgg nga toog fii ab diir parce que am na lu ma yàlla wan ci ci ci yow Mouhamed Bello aussi du du nitu kese ah. bu mag la te ci kanam tuuti di nga ko xam buur la buur la buy jiite tabaarakallaahu Cheikh Omar ni ko ah du mën a nekk nag parce que dama jublu makkatal mukarram te dara mënul dox sama diggante ak egg fa parce que Mouhamadul Ghali yëg naa ni ma nga fa te damaa ñaan ñaan suma boroom pour muy tënkal ma ko ma fekk ko fa te yàlla nangul na ma ko ba pare kon il faut ma jóg <laughs> mu ne quoi euh, amoon naa yéene nag suñuy deret jaxasoo maanaa nga jël soxna ci sama ñoñ mm-hmm. Cheikh Omar ni ko mënagul nekk waaye dinaa la ko dig maa ngi dem penku su may dëpp su may dëpp mu ne waaw ah, mu ne ko danaa jël soxna si Mouhamed Bello ni ko malheureusement booy dëpp yow day fekk man faatu naa maa ngi ci bàmmeel kooku dara la de. xam-xam te Mouhamed Bello buur la. buur la. Hmm, Bello. boobu moo nekk buuru Sokoto. au Nigéria. mu ni ko yaa ngi dem Cheikhou yaa ngi dem mais booy dëpp day fekk man faatu naa. allahu akbar. dem traversé Nigéria fekk bi muy jóg. cheikhu daawul dugg noonu rek dëkk bi mu egsee ba Qahira mooy le Caire mu campé bi mu defee xalwa mu tëdd ba guddi ñu ni ko Misra mënuloo koo traversé te amuloo ku la garantir mhm. mais yow ki la war a garantir kooku mooy Muhammad al Maghribi yi mhm. mu coché tur bi bi Cheikh Omar duggee Misra mm-hmm. mu ni Mouhamad al Maghribi moo ko war a garantir moom déjà jàpp na loolu mm-hmm. mais fi mu campé mu tëdd ba guddi ñetti ponkal yegg si fa mm-hmm. ndekete ay ay ay ay addu kalpele woon yoo xamante ni dañoo karoon njëg nangu alal ci ñoom ñëw denc ko ci àll bi moom ay agresseur lañ daal. voilà fa ñu ko denc réer leen ñu di ko wër di ko wër ba fa Cheikh Omar fi mu campé. ñu ni ko ñun dafa am butin bu ñuy wër waaye yow nii ñu la gisee bëggoon nañ daal nga ñaanal ñu bu ñu gisee butin bi dinañ la ci neexal alal ju takku. dinañ la neexal or dinañ la neexal alal Cheikh Omar mu ne waa may leen ma ba ëllëg. ba ñu demee ci guddi Cheikh tëdd benn xaatifu rabbaani ñëw am na ñu ni daf ko indil benn aaya alquran mhm. maa indakum yanfadu wa maa inda day jeex waaye la ci yàlla moom du jeex wallaahi Cheikh ni ah kon ñii waruma jëflante ak ñoom ba ñu yewoo ñëw mu gàntal leen mm-hmm. tabaarakallaahu foofu nag la génn dugg misra bi mu ñëwee mu gis ni misra mm-hmm. seen structure yu mag yépp dañ faa bind misluka alf ci gàttal mooy looy jaay junni yu la ko ëpp ëppalee ñu ngi fii maanaam boo boo fay dugg rek loolu lañ bind ci buntu dëkk ba ci waa ak seen structure yépp waaw buntu pale baag est-ce que buntu université ba université yaag buntu jumaa yaag yépp loolu lañ fa bind. ne looy jaay. ku la junni yi la ko ëppale ñoo ngi fi. loo fi indi rek junnee mu ngi fi. mooy mooy Égypte. tabaarakallaahu bi mu waxee loolu. Mm-hmm. ah foofu nag maamu sëñ Cheikh Ahmed Tidiane yàlla defaloon na ko sirru yeddi. tabaarakallaahu. Hmm. ci la yëkkati loxoom bu tedd boobu moom seexu ba jot mbind ma ba jot mbind ma hmm. mu daal jël baaraamam bii daan ni illaa omar allahu akbar <laughs> illaa omar nag ñaari yoon la ko mës a benn bi booba tout tànk la mi ngi toll ci six ans sëriñam di jàngale muy cerno ngira xamaat ñu ni cerno boobu dafa doon jàngale maqaamatul xariiri yi mm-hmm. ñii ni déedéet dafa jàngale ba tudd benn aaya alquran ni kullu nafsin zaiqatul mawt mm. bakkan bu mus dund daal di nga mos dee fekk Cheikh Omar mi ngi ci juróom benni at mu ngi toog fële di fo mu ni illaa Omar laa ilaha lisaanul xaal mm-hmm. asdaqu min lisaanil maqaal mm-hmm. mu ni illaa Omar ñu ni ha mu ne man de su kenn kenn du teg perkaal ni néew baa ngi nii ñu kàbbar ci kaw nañu nit ñi déglu ak xel mais boo waxee jëm foofu léeg nit ñi interprété ko yàlla du wax muy deñ kullu nafsin zaiqatul mawt waaye moom nee na kenn du ko jullee amul kenn ku am maqaama taxaw ni maa gis ñu jullee Cheikh Omarul Fuutiyu amul وموتا بلا رمز بلا روي وموتا بلا رمز wa moo ko wax de xayaatan bila rawxin wa mawtan bila ramsin kooku Cheikh Omar ko wax moo ko bind noir sur moo ko bind te kooku du wax muy deñ billaahi tabaarakallaahu ñaari yoon yooyu la ko musa wax bi ci des misra la ko waxe mooy dafa gis ñu bind mislu ko alfu mu ni illaa omar noo sa junnee ngi fi mu ne ba mu des mu ni illaa omar mu yëkkati loxo bi dafa projeté sa loxo bi taaweeku ba jot mbind ma mu bind illaa Umaru ba mu des Omar hmm. ba mu des Omar léegi nag li jaaxal waa Misra mooy ku bind lii dafa projeté loxoom hmm. maanaam dafa taawi loxoom mooy mooy ba jot sirul yet voilà xam nga sirul yet mm-hmm. ba ci ay sëtam mm-hmm. donn nañ ko ci moom parce que mm-hmm. mooy bàyyu Cerno Bachir Muntaka Taha sirul yet mooy soo toogee fii nga toog bëgg bëgg laal Pape Cheikh da def sa loxo ni rek mu yegg si mu nekk yegg si Pape mu dellu soit mel na mu meloon moom noonu moom ba si maam euh, sëtam bu jox Thierno Mountaga Daha hmm. mooy papa Thierno Bachir Mountaga Daha hmm. yàlla mayoon na ko pap Allahu fu mu fu mu fu mu fu mu fu mu bëggoon loxo bi yegg fa rek dafa ma si hmm. yónnee benn taalibeem ni que demal jox ma sama satala sama satala gee taalibe bi di ko laaj tali bi jëm jël si satala gi cenn tàllal loxo bi jël satala gi dellu siwaat la ilaha illallah tabarakallah loolu nag def ko seen seen maam lañ ko doon di Cheikh El Hadj Omar Fouti macha allah dégg wax bi léegi leer na ah, ok waaw nga ah. misluka alfa fan ko bind illa omar maanaam taxawaay jotu ko dafa taxaw tawi loxo bi ba jot ko bind illa omaru baaraamam la ko binde illa omaru voilà moo tax bi ñu bi nga xamante ni moom ci haatifu rabbaani benn haatifu rabbaani moo ko wax yow misra mënuloo koo traversé te amuloo garanti te yow ki la war a garantir mooy Mouhamad al Maghribi booba moo nekk ci palais royal bi Cheikh Omar ñëw ba ci buntu palais royal bi mu fekk garde yi taxaw mu ni asalaamualeykum fi mu nuyoo ak fa góor ga nekk distance la loolu du du du du neen de mais dégg na ko dégg na nuyoo maam si amul wallaahi laazim fi mu taxaw bëgg dugg garde yi téye ko mu ni asalaamu aleykum Mouhamad al Maghribi fa mu toog fayu ko aleykum salaam de hmm. daf ko tontu ko kan la Cheikh Omar ni ko Omar ibnu Saïd mu daal koy balancer une question grammaticale waaw am na ñu wax ni daf ko yónnee benn aaya alquran fa inna ma al usri yusran inna ma al yusran mu tëgg ko ñaari al usri yooyu Cheikh Omar tontu loo xamante ni moom xamu ko mu ni garde bi indil ma jëmm jooju loolu moo tax moo lié Cheikh Omar ak Mouhamad al Maghribi ba ñu toogee ñu def échange waxtaan ba waxtaan bi xóot mu ni ko duma la mën a bàyyi mais il faut ma invité la invitation boo xamante ni boroom xam-xam yi ci misra yépp dañuy teew ci pale bi luy xeetu teraanga mu teg ko Cheikh Omar ñëw toog ñu téye Cheikh Omar. 9 heures du matin ba 14 heures de la journée. ñoom ñooy laaj seexu di tontu. 9 heures du matin ba 14 heures de la journée ñoom ñooy laaj Cheikhou Omar di tontu te question bu ñu teg mu tontu ci lu ñu xamul. ñu dem ba 13 heures 14 heures jib mu ni ah ba ñu xëyee ba léegi yéenay laaj man am naa question. ñu ni ko laajal benn question la leen tëgg. ñoom ñëpp seen sikkim yi dafa gañe ci seen dënn yi. xam nga dégg ngeen wolof bi ma làkk. ñoo sëgg. voilà kenn tontuwul bi ñu jaaxlee ba jaaxle ñu rocceeku yónnee woo woolu seen benn mufti bu ñu yaakaar bu mu nee tëll li mu njëkk a wax ci xolam mooy yéen nit ku ñuul kii moo leen jaaxal li njëkk a wax ci xolam <laughs> mooy nit ku ñuul kii moo leen jaaxal. la daloon nit yàlla ba dañ ko fekk ci boutique muy tànn ay ay yu bakkane waa ji romb rek daan ne xanaa du kii mooy jaay wilaaye fii ci dëkk bi moom mi ngi fii di tànn yu bakkane ci boutique bi mu ne ko hey ba waa ji xool ko mu ne ko aljismu fil xaanuuti wal qalbu fil malakut la jëmm jàng ci boutique bi waaye baa nga malakut loolu moo dal Cheikh Omarul Fouti mu ni Cheikh Umarul Fuutiyu mu ni waa ji a ah, yow de bu dee lu ñuul def la déranger mu ni sa karaw gi wat ko parce que dafa ñuul bu dee lu ñuul def la déranger bul tiimati alquran di ko jàng parce que dafa ñuul mbind mi bu dee lu ñuul daf la déranger yow bul wërati kaaba ga parce que dafa ñuul bu dee lu ñuul def la déranger mu ne ah mu ne fattal say bët parce que bët bi li ciy weex ak li ciy ñuul la ciy ñuul mooy gis. wallaay te daf ko jëw rek ci xol. Mhm. mu siggi ni madxun wa zammun fi makaadin waaxidin min waaxidin li waaxidin. Mm. ajabaani. yéeme na de. القيامة كذا كشيخنا عمر هو الولي الذي ترجى شفاعته يوم القيامة شيخنا تبارك الله مني عمر مني اه دق دق نك xas nit wëlbatiku tàgg ko ci benn place mu jóge ci kenn nit jëm ci kenn nit ci benn place Cheikh Omar nee xaw ma lu ma yéemul waaye loolu yéem na ma parce que après jox na ko loxo tabaarakallaahu keroog la jëflanteek ñoom yu yéeme mufti boobu sax moo mujj laaj ko ni ko yow fan nga jóge mu ne ko réew mi ñuy wax Sénégal ci gox bu ñuy wax Fuuta Tooro mu ne ah yow est-ce que ku mel ni sa baay am na foofu mu ne ko bari na foofu mais sama yaay nag moo fa jafe oh. macha allah est-ce que jigéen mu ne ku mel ni suma baay mu ne ah, mu bari na foofu du fa jeex mais ku mel ni suma yaay moo fa jafe tabaarakallaahu Mouhamad al-Maghribi moomu yemul ci garantir Cheikh Omar pour mu traverser Misra daf ko yan alal daf ko yan alal ci diggante or euh, alal xeet yépp ba wëlbatiku jox ko ay waruwaay yoo xamante ni bu traversé moom lay jubloo makkatal mukarram bi Cheikh Omar traversé départ uti Màkka boot alal ji mu ko jox bi mu ñëwee ba egsi Makkatal Mukarram tabaarakallaahu mu armal dem wër kaaba gi bi mu ñëwee ba egsi maqaama Ibrahima foofa nag la dajee ak Mouhamadul Ghali oh. macha nga xamante ni avant muy jóg. xam na ni ma nga màkk. voilà yëg na ko ci baatin. mu mu sukk ñaan yàlla na ko tënkal Mouhamad Ghali ba moom mu fekk ko fa parce que li muy jëli mi ci moom. ñu daje ci ga. ñu daje ci maqaama Ibrahim. allahu akbar fekk lu jiitu loolu. Cheikh Omar dund na ak Cheikhu Tidiane 18 ans. Mm-hmm. am na ñu ni 17 ans ci année lunaire année solaire mm-hmm. mais ñu gisante ci Zahir. Mm-hmm. ci Zahir gisantewul waaye dafa am loo xam ni xew na te Seexu Tijaan làquwul mooy Muhammadul Ghali dafa tëdd ba guddi mu gént di jox wirdi Tijaan imam Mahdil Muntazar réew mi nag dafa naqaree waxe waaye nañu déglu bu baax li may wax balaa ñu koy interpréter Muhammadul Ghali moo tëdd ba guddi yàlla wan ko muy jox wirdi Tijaan imam Mahdil Muntazar ba mu xëyee mu ñëw ci zawiya Cheikhu Tidiane daf ko jub rek Cheikhu Tidiane muñ ni ko Mouhamadul Ghali xanaa sa géntu biig gi dalaa jaaxal mu ne ko jaaxal na ma de mu ne ko lu tax mu jaaxal la ki nga gis dafa ñuul mu ne ko waaw mu ne ko kokoy Omar ibn Saïd mu ne ko dama gént di gis di jox wir di Tidiane imam Mahdil Muntazar te ki ma gis dafa ñuul mu ne ko kookoy Omar ibn Saïd kooku suma taalibe lay doon Afrique noire lay jóge dana fetal jihad waaye balaa mu koy fetal moment bi mu ci bi muy fetal jihad bi dafay fekk mu tollu ci maqaama imaamul mahdil muntazar ah day toll ci maqaama imaam mahdil muntazar lay fetale jihad kon na nit ñi di déglu parce que moom Omar la tudd ibnu Saïd mhm. te téere yi am na lu ñu jàngale ci imaam Mahdi nu muy tudd. nu naka lay ñëwee. Mhm. voilà kon mu ni sama taalube la. Mhm. bis bu tolloo ci fetal jihaar dafay ëndaale. maqaama imaam Mahdi muntazar waaye man Seexu Tijaan day fekk làqu naa yow lay giseel. macha mu yëkkati jawaahirul yi teg ci loxo teg ci loxoom. ni ko boo taseeg moom maqaama Ibrahima ngeen di daje. mais Mouhamad Ghali. shérif la sëtu yonent bi la waaye du waa Madina. Cheikh Cheikhu Tidiane moo ko digal ni ko bu ma làqoo na nga dem màkkatal mukaram diggante Medina ak Makka di nga daje ak Omar ibnu moomu yéen a ngi daje ci maqaama Ibrahim waxtu aj mais na nga yëkkati jawaahirul maani jox ko dina la laaj lii lan la ne ko Cheikhu Tidiane la ko dénk. yam foofu moom dina la laaj ni la ba kañ ne ko ba yowmal qiyaamati allahu akbar jël micro bi macha allah macha allah yokk yokkal ko son bi صادعة ترى سناها من الحلوى ربا جقر وورد مكتومنا يتلى على حلق في غرب إفريقيا يهدو به أمر وورد مكتومنا يطلى على حلق في غرب إفريقيا يهدو به شيخ عمر الفوتي يكفي الرماه دليلا يكفي الرماه دليلا يكفي الرماه دليلا أنه بطل يحمي الجواهر حصنا حوله صوره ترى السفينة في الطوفان جارية نحو السعادة لا خوف ولا خدر بعادم وسعيد فخر فوت به وأهل فوت به فعلوا به افتخروا بارك الله, بارك الله. ما شاء الله ما شاء الله حج باب مني مني مني محمد الغالي di ngeen daje ci maqaama Ibrahim yëkkatil jawaahirul maani teg ci loxoom dina la laaj lii lan la ne ko Cheikhu Tidiane la ko dénk yam foofu bu la laajee bakkañ ne ko ba yowmal qiyaamati bi Cheikh Omar di egsi ci maqaama Ibrahima ci la séenante ak Mouhamadul Ghali kenn waxul sa moroom kii mooy diw parce que Mouhamadul Ghali gis na ko ci gént ba mu jàkkaarloog jëmm ji la ni automatiquement kii laa gisoon Cheikh Omar bi mu jàkkaarlook Mouhamadul Ghali def ni kii amee sama yëf moo yor sama yëf li may jëlsi kii yee ko yor ba ñu saafoonte dafa yëkkati jaahirul maani teg ci loxo Cheikh Omar ni ko lii lan la mu ne ko Cheikhu Tidiane la ko dénk Cheikh Omar ni ko ba kañ mu ni ko ba yowmal qiyaamati mu jël ma euh, jawaahirul maani taf ci dëndam ca la ko yàlla paase lam ko paas yëkkati téere bi fóon daal di téye jawaahirul maani ci aj googu fu mu amee temps libre mu ubbi fu mu amee temps libre mu ubbi bi aj giy jeex mu jeexal téere bi ca la ko yàlla paas la mu ko paas mu jot ndigalu nag ni dañ ma dénk Seexu Tijaan yi moo ma dénk lim ma dénk dama ko war a préserver ba yowmal qiyaamati looloo waral mu def rimaax macha allah ñu ngi ñëw am nañu mbégte am na solo yaakaar naa ñëpp bég ni ko oustaz Pape euh, laaje woon sànq tey gët